asalaamaaleykum amis chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci biir Equivox TV la chaîne leader mais aussi c'est la chaîne qui informe juste et vrai ñu ñëw nag ci seen émission du Vox euh, People mi émission boo xamante ni c'est 100 pour cent people lépp li nga xamante ni rek actualité la bu ñeel wàllu people bi fii la toog daal di leen koy décortiquer indi leen ci lu leer nañ ba ñu bëri li nga xamante ni rek leer woon seen bopp mu daal di leen leer yaakaar naa ni nag li gën a fës jamono ji euh, ci actualité people du leen rek lu dul problème bi nga xamante ni moom moo dox diggante Bayzal ak ki nga xamante ni rek moom mooy euh, Adamo yaakaar naa ni nag coow li bari na ku nekk ngi génn nee naa leen lépp li nga xamante ni rek actualité euh, people la ci kàttanu yàlla fii la ñuy toog daal di leen ci indi li nga xamante ni rek moom moo ci leer nàññi ndax yaakaar naa ne ba cooli euh, tàmbalee ba tey ku nekk nga ci interprété nu la neex ku nekk nga ci wax di yëy di ci yàbbi alors que nag mbir mi demeewul noonu ba boobaag léegi nag nangooguma cee euh, wax ndax nag damay topp kaa ba xam exactement mbir mi fan la jógee naka la demee ak euh, nan la mbir mi daal daal di euh, tëddee ba tax na rek dinañ ci dugg bu baax a baax indi leen li nga xamante ni rek moom mooy dëgg tegal leen ko ci table bi dañuy doore rek euh, ak vidéo bi nga xamante ni Adamo daal dina koy def muy video boo xamante ni rek viral na ñëpp ñu ngi koy waxtaanee discussion bi nga xamante ni dox na nee na diggante moom ak ki nga xamante ni moom mooy Baye ñu dem seetaani vidéo bi daal di ñëwaat. laa la wax waxuma la nga ma lien bi mais déggal li ma la wax nag. Baye Sall vidéo yi mënuma ko supprimer mënuma ko supprimer parce que sénégalais yi dañ lay dëkkal foo xam ne dëkkoo fa te man lu may wax ak yow rek day leer loolu moo tax mënuma ko supprimer damay bàyyi muy daw rek. bàyyi muy daw rek comme que guerre la moom nan guerre rek na saf des na nag des na de des na yu bëri nga waxoon ci a Badiane ak Ameth Thiou ak Samy Thiou nag des na yu bëree bëree bari yu war a ñëw. moom man ragaluma li muy lii jëm kaw man ragaluma loolu man sama yaay dafa sëy kër ma kër papa kat tayam am man der bu ñaaw kenn yoraluma dara ma ndey dara maa ngi yow ñoo doon wax may jël samay audio di la ko envoyé yow nga jël samay wax di ko yóbbu ay saligéey ku nekk di ma wo li nga wax rek moom laa def li nga wax rek ak li ngay sant Mara ak li ngay def loo Mara ak li ngay toog di ko wax lépp xam nañ ko. soit que ñoom Metso ak ñoom Wally Seck ak ñoom ñëpp yow xaaral rek ñëpp dinañ xam ñi war a xam man booy <laughs> bàyyi taal da ngaa xamul rek dëj ko du ma ko supprimer wasa. du ma la bëgg a laal barke alxuraan karim dama lay xaar ba nga ñëw àpp naa ko fii ba Belgique dinañ gis. du ma la bëgg a laal barke alxuraan lay xaar nga ñëw àpp naa ko fii ba Belgique dinañ gisante. après yow di comprendre ni man yow li ngay lijjanti noonu ak li ngay ut kilifa yi ngay ut ak di yaa ma neex muy waaleeg Metsob ak ku la neex demal nga wax lijjantiwuma sax loolu man lii sama problème personnel la. barki salaatul fatiha gis nga Adamo li ngay wax nii yëpp yaa ngi aggravé sa ak sama bàmmeelu yaay li nga yow fukk yow xalaat su ma la gisee Adamo dinaa toj ak sama bàmmeelu yaay su ma la gisee dinaa jàmmat ci sa dëkkal lay sedd man maa la ko wax maa ngi toog di la xaar. wax yi nga may wax nii nii su ma la gisee dinaa kat sa data nday ba nga yaakaar ne lii du dëgg yow li nga dugg nii sax xamoo ko man du ma doomu xaramu benn nit man yi ngay wax nii ay tegal ojo waale tegal audio nii yow yaa ngi may gën a tooñ nii te bàyyil bañ gisante suñ gisantee di nga xam ne ni lépp dëgg la. yow kuy laaxatu moo moo lay woo man laaxatu ma man la bàyyi daal encore une fois laaxatu ma audio laa lay def ay ojo laa lay defal nii nëbbu ma li may def nii yóbbul audio yi dugalal audio yi. lijjantiwuma loolu mais dama la wax na la nii yow suñu gisantee nii nii. Baye saa li ngay wax nii lépp bu la leeree ne waale dina ko xam rek na doon sa jàmm bu la leeree ne waale dina si jot rek waali moom kenn mënu koo jaxaseeg man kenn ci àdduna bi kenn mënu maa jaxaseeg waali waaw waaw kenn mënu maa jaxaseeg moom xaalis bu bëri la ma may sama xarit bi gën diis borom xol bu rafet waaw moom kay waali mention spéciale. xaalis bi waale jox laa la wax xaalis bi la waale jox laa la wax jël ko moo li nga ci yaakaar yëpp dugal ko ci nay xanaa déggoo li ma la wax dama lijjanti yow li ngay wax nii jëlal loolu mu la jox noonu yëpp nga dugal ko sa lëfal ndey man du ma cramer kenn ndax sama problème man mën naa ko régler sama bopp te yaa ngi fi man maa ngi fi sama problème dinaa ko régler ñoo ko seetaanandoo gis ngeen vidéo bi nga xamante ni moom moo dox diggante Bayzal ak ki nga xamante ni rek euh, moom mooy Adamo yaakaar naa ni vidéo bi viral na muy waxtaan boo xamante ni sekkoon nañ ko ñu bëri nag ñu ngi ci yàq lu mel ni keteme ki nga xamante ni rek moom mooy Bayzal alors que nag mbir mi demewul noonu yaakaar naa ni vidéo bi ku ko dégg bu baax a baax a baax nga nekk koo xamante ni euh, maanaam xam nga wàllum informatique wala mix li nga xamante ni moom mooy audio di nga xamante ni euh, c'est pas c'est pas c'est boo xamante ni c'est réel maanaam la boo xamante ni Adamo daf ko mixé jël ay audio yoo xamante ni daf ko doon vocal boppam ak waxtaan bi nga xamante ni sekkoon na ko ak Baysal daal di koy euh, jaxasee ba am ci li nga xamante ni loolu la génnee nii pour bëgg a yàq li nga xamante ni rek moom mooy deru Baysal damay ñëw nag ci li nga xamante ni moom mooy euh, début euh, vidéo bi yéen a ngi dégg Bayzal fi mu koy waxee naan ko supprimer la euh, vidéo bi waxuma la nga envoyé ma ne déggal li nga xamante ni loolu laa la wax alors que mbir mi demeewul noonu lii taxu woon sax Bayzal di wax loolu li nga xamante ni moom moo ko wundu du lenn rek lu dul euh, vidéo bi nga xamante ni moom Adamo defoon na ko ba euh, moom mi dañuy génnee àdduna daal di dévoiler li nga xamante ni rek moom mooy secret bi nga xamante ni rek moom lañ doon nëbbu seen famille yëpp muy feebar bi nga xamante ni moom moo ko daloon ñëpp di ko nëbb moom mu daal di génn xamal ko li nga xamante ni rek moom mooy sénégalais looloo tax Baye Zale ne ko Adamo génneel vidéo bi nga dugal bu ma envoyé ay lien déggal li nga xamante ni loolu laa la wax euh, dama leen tegal li nga xamante ni rek moom mooy euh, audio bu authentique bi ak Adamo lan la ko tontu foofu par rapport ak vidéo bi nga xamante ni Adamo mi ko naan ko du ma ko supprimer ndax dem na ba pare ngeen déglu conversation bi ak mbir mi naka la demee A Z. Adamo man dama laa wax na supprimer vidéo buy laa la wax bokkuma la nga mais déggal li ma la wax nag. ñoo ko seetaanandoo dégg ngeen Baye li nga xamante ni loolu la njëkk a wax ci audio bi nañ dem dégluwaat ki nga xamante ni moom mooy aadamoo lan la ko tontu ba ko Baye Zale waxee loolu. waaw maa yow Baye man ba ma dindee vidéo bi yàgg na kii lien bi ma dugal ci vidéo omoro bi moom laa la yónnee vidéo yi kay bu ma ko dindee yàgg na. mi ngi noon yaakaar naa ni commencement vidéo bi nga xamante ni Adamo génnee na ko Baye Zale ko wax. ak aadamoo li mu ko tontu ak Adamo li mu def comme tontu ci vidéo boobu c'est diamétralement opposé kon yaakaar naa ni contexte yi nekk contexte yi nekkul woon benn waxtaan bi nekkul woon euh, euh, benn et que lan moo waral la saaga yoo xamante ni rek moom Baye Zale ko doon yëkkati di ko teg Adamo loolu Bercy la amee encore une fois mbir mi Bercy la amee coow li ameewul Sénégal Bercy la amee diggante moom ak ki nga xamante ni moom mooy aadamoo ndax moom ak Adamo ñoo bokkoon benn hôtel foofu nga xamante ni rek moom mooy ca euh, Paris aada moom mu ngi nekkoon huitième étage ñoom ñu nekkoon deuxième étage te boo leen dégloo ci vidéo bi nga xamante ni maaraam mi ngi ko def yéen a ngi dégg bu baax a baax mu naan Bayzal moo ma jëlee Italie indi ma Paris pour ma faju Bayzal moo jëlee ki nga xamante ni moom mooy Mara euh, Italie indi ko Paris ñoom ñaar ñu bokk dëkk ci hôtel boobu noonu léegi nag Adamo ba mu leen raxee nekk ci biir hôtel bi dafa jël ay renseignement bu yu ñeel euh, Mara daal di koy jox waa camp mooy waa Subatel daal di leen xamal ni Mara mu ngi ci hôtel bi jox leen numéro chambre bi nga xamante ni foofu la euh, Mara nekk léegi nag dafa am ay booyu euh, ki moom suba teel musique yu nekk fii Sénégal daal di woo ki nga xamante ni moom mooy Mara téléphone di ko wax ne ko diw xam na fi nga nekk te nee nag bu la jàppee doo doy bay des daal di terroriser ki nga xamante ni euh, moom mooy euh, Mara moom njiitu euh, Subatel moom moo wax loolu ba booy daal di koy jottali ki nga xamante ni moom mooy Mara ci la ko Mara nag daal di expliquer ki nga xamante ni moom mooy Bayzal ba mu ko expliquer Bayzal nag Bayzal looloo tax nag mu audio ki nga xamante ni moom mooy aadamoo di ko daggal saaga ndey mais nag Adamo dafa teg li ko arrangé tegul ba mu jeex li nga xamante ni moom la Baye Zale wax boo euh, amee information yoo joxe nga joxe yeneen information mais bul joxee information Mara dañuy dem déglu ju saaga ndey fan la commencé ak naka la demee daal di ñëwaat. ñoo ko seetaanandoo dégg bu baax a baax Baye Zale yi nga xamante ni yëkkati na ko lii moo waral saaga ndey yi nga xamante ni moom la ñu mixé ci vidéo bi nga xamante ni Adamo génnee na ko dégg ngeen bu baax a baax audio bi tungu ne du teew ñu nataal moo tax ma tegal leen li nga xamante ni moom mooy audio yu authentique yi ojo yi nga xamante ni moom moo ñel waxtaan bi nga xamante ni sekkoon na ko ak ki nga xamante ni euh, moom mooy Baye Zale moom euh, Omaro ndaxte nag Baye da doon dal ci kawam ndax moom aadamoo ci boppam moo jox ay renseignement kambale ci ki nga xamante ni moom mooy Mara loolu nag moom moo métti ki nga xamante ni moom mooy Baye Zale nag dégg ngeen ko audio mi ngaan ko Mara man maa ko fi indi boo joxatee ay information ci moom daal di jaar fu ñaaw muy audio bi nga xamante ni euh, Mara def na ko dañuy tegaat beneen audio boo xamante ni ba tey ci saaga yi ngeen comprendre mbir mi naka la demee parce que Adamo dafa bëgg a euh, maanaam euh, gëmloo sénégalais yi que ni rek Baye mu ngi woon fii Sénégal da ko doon wax naan ko su ma la jàppee bis boo ñëwee Sénégal alors que lépp mu ngi xewee fi nga xam ni moom mooy Paris ñu dégluwaat beneen audio Baye Zale ñëwaat. du du seytaane nga def sa bopp man sa sa affaire du seytaane yooyu noonu ak seen dil yooyu ngeen nekk noonu man kattu ma ibbiwuma li fa nekk lijjantiwuma sax dat booy bul mat yow na la yàlla nattu du ci hôtel bi ngay fanaan yow na la yàlla nattu ba nga ñëw dugg ci hôtel bi soo duggee ci hôtel bi yow di nga comprendre yow da ngay dof dof la yow dofoo man maa la gën a dof vingt fois soo yoree say duul doo day duulal ndey sa bopp duulal la ndey sa bopp lan moo ñu koy tudd ay turam di ko jéem a wax fii loo wax ndey bi midi une heure gars yi dañ ciy jot lijjantil sa ndey problème ñun calculer wuñu sax sa lëb apporté looñu te sa ndey voilà mi ngi noonu nag yaakaar naa ne audio bi tamit euh, ñoo ko euh, dégloondoo lii moo waral saaga yi nga xamante ni Baye mi ngi ko doon saaga ki nga xamante ni moom mooy Adamo que boo leen xoolee ci vidéo yi da ngeen di gis Adamo di dem ci camp bi ci camp bi ci nga ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, Bercy bi maanaam information yëpp Adamo moom moo ko doon jël di ko jox ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy waa camp bi looloo métti na Baye ba Baye Zale daal di koy saaga saaga ndey yëpp parce que Baye Zale daf ko doon xaar ci hôtel bi daf ko doon xaar ci hôtel bi ndax boo la déggee Baye Zale ne ko hôtel bi ngay fanaan boo ñëwee dinaa jaar fu ñaaw ndax Baye Zale da ko doon tëpp di ko dig ay dóor Adamo nag audio yi la jël daal di koy envoyé sa liggéey daal di koy envoyé ñoom Merchop ci la ko Baye ne ko envoyé la ku la neex lii sama euh, sama sama sama sama yëfu personnel la bàyyil Mara ndax man Mara man maa amoo droit di jël ay information ci maaraa di ko jox ki nga xam ne moom mooy Matar Diop Soubatel déglu leen Adamo li nga xamante ni loolu la tontu. Baysal ci li nga xamante ni moom moo ñeel waxtaan bi nga xamante ni sekkoon na ko moom ñëwaat. Baysal yow yaa fi nekk di wax di saaga di tarara de da nga sosal da nga ne damaa wax benn affaire damaa wax waxu Mara wala dangaa wax waxu maara man maa ko wax Matar Diop suba teel daa woon nit wax ko ko loolu nga ma wax te du yow yaa ma ko wax nga dem ma yaa ngi enregistrement wala yaa ngi preuve léegi tagal ma ko wala nga envoyé ma ko man ngay sosal kay di ma xas yow kay bàyyil ba yaakaar naa ni dégg ngeen Adamo li nga xamante ni loolu la tontu ki nga xamante ni moom mooy Baye Zale muy waxtaan boo xamante ni ñoom ñaar sekkoon nañ ko te Bayzal daf ko doon tëkk bu ñëwoon ci hôtel bi du doy bay des ci audio yi dégg ngeen Bayzal saaga yi nga xamante ni mi ngi ko doon saaga mais Adamo daf ko utiliser ci beneen contexte mel ni que Bayzal dafa am lenn loo xamante ni moom daf ko koo xamal wax ko koo vilipender ñu dem seetaanaat beneen audio boo xamante ni rek euh, Bayzal envoyé waat na ko ki nga xamante ni moom mooy Adamo muy audio yoo xamante ni moom moo nekk audio yu authentique audio yi nga xamante ni moom waxtaan la woon bu mu sekkoon ak ki nga xam ne mooy Adamo ñu dem déglu audio boobu daal di ñëwaat. moom man ragaluma li muy lii jëm kaw man ragaluma loolu man sama yaay dafa sëy si kër ma kër papa kat am man der bu ñaaw kenn yoraluma dara lijjantiwuma ndey dara maa yow ñoo doon wax may jël samay audio di la ko awaay yow nga jël samay wax di ko yóbbu ay saligéey ku nekk di ma woo amul problème loolu parce que ragaluma loolu man aw ma kilifa fii. loolu dama la koy wax pour mu leer man sama kilifa sama ndey ak sama baay lañ te dee nañ amatuma kilifa man kese maay dund nii sama life soo may wax naan ma ay dem naa ci kii dem naa ci kii demal ci ñëpp man nga tooñ directement yow da nga jàpp ni man maa la tooñ man dama jàpp ni yow yaa ma tooñ léegi yow góor nga may góor suñ gisantee ñu reyante man ragaluma loolu man Europe ak Sénégal laa yemale ragaluma ko defal vidéo bu la neex jëlal def tegal lu la neex ndax man yow ku lay daw mooy ku lay ku lay bañ a audio man dama la defaral ay audio jox la ko ragaluma loolu defal li nga bëgg a def barki salaatul fatiha app naa ko fii ba le l'an deux mille cinquante maa ak yow fu jàmm yenn bu mu fa fanaan après nga xool ndax ñi nga clamé ñëpp mën nañ ci dara voilà euh, ñoo dégloondoo boobu audio tamit ba tey ci saaga yi nga xamante ni rek moom mooy vidéo bi Adamo génnee fii dégg ngeen bu baax a baax euh, audio audio bi authentique bi li nga xamante ni loolu la génnee euh, Baye Zale mi ngi koy saaga saaga yooyu nag la Adamo jël envoyé ko sa liggéey envoyé ko Medshop ñooñu ñëpp di woo ki nga xamante ni moom mooy Baye di ko di ko ñaan njekk mais Adamo dafa dëpp carte gi mel ni que moom Baye Zale li mu koy wax naan ko dama la envoyé ojo loolu sama diggante man ak yow la yam mel nii Baye dafa jël ay ojo yoo xamante ni lu ñeel yaayu Mandiaye Seck di ko ko yónnee alors que demeewul noonu contexte yu bokkul li nga xamante ni moom la Adamo bëgg a gëmloo Sénégalais yi ak li nga xamante ni foofu la histoire bi jugee c'est diamétralement opposé lii Adamo la ak ki nga xamante ni moom mooy Bayzal ak ki nga xamante ni moom mooy Mara ndax Adama moo doon jël ay information ci ñoom di ko yóbbul waa Kambale looloo métti nag Bayzal ba Bayzal di ko saaga ay ndey di ko yàq lu mel ni xeme alors que nag lépp li nga xamante ni wax na ko ci vidéo bi moom moo ko monté da doon jël ay audio moom Adama di vocal boppam di xool li Bayzal wax di xool moom li muy vocal di ko takkale pour bëgg a yàq li nga xamante ni moom mooy deram maanaam daal euh, yàq ko ba sénégalais dootu fi jarati dara alors que mbir mi euh, euh, demeewul noonu te benn leen di jox yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan yaakaar naa ni nag bu ñuy seetaan ku ci nekk rek day indi li nga xamante ni moom mooy sa xel nga jiital ko audio yi boo ko dégloo da ngay xam ne audio yi euh, audio yu ñu moonte la ndax euh, ki nga xamante ni moom mooy aadama boo leen xoolee képp koo xamante ni aadama yoreel na la kaa wara mu yoreel la loo xamante ni lu sérieux la du jël ay vidéo di monté di kole di dugal yéen ñu may seetaan xam Adamo xam ngeen bu baax a baax li nga xamante ni loolu laay wax Adamo day dugg ci live fam jël téléphone am dugg ci discussion bi nga xamante ni sekk na ko ak nit ki di teg audio nit ki di teg moom li mu ko tontu di teg audio nit ki di teg li mu ko tontu Adamo bu fekkee lii nga xamante ni mi ngi koy waxal Baye Zale lu am la na dugg ci discussion moom ak Baye Zale mu dindi li mu bind turu Baye Zale génnee numéro Baye ba Sénégal yëpp xam ni kii Baye Zale la mu génnee audio yi nga xamante ni sekk na ko ak Baye Zale fi Baye Zale di waxee ak moom ak moom fi mu koy tontee mooy vidéo yi nga xamante ni dugal na ko pour wan leen ni rek Adamo lii daf koo manigancé te lii dafa am ñoo xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaawam ñoom ñoo ko activé te ñu ko activé du du ñenn ñu dul waa daal te li may wax ay preuve yu leer nañ laa am li ma def nag ba xam audio yi fan la jóge noonu laa xamee ki nga xamante ni moom moo nekk ci bopp li di activer Adamo pour mu dal ci kaw Baye Zale ndax yaakaar naa ne fan yi ñu génn ñu ngi jot ay information naan Wally Seck dafa am entourage am ñoo xamante dañ koy liggéey tudd nañ fi Omaro tudd nañ fi keneen ak keneen alors que yooyu yëpp dara nekk ci Wally Seck magum jëmm la yaakaar naa ni moom mooy seen kilifa ñoom ñëpp képp koo xamante ni dafa nekk ci moom te amaloo ko njëriñ ci wàllu liggéeyam dalay bu ma sànni la fële Baye Zala dafa jugee euh, ci label ñëwaat ci beneen label ànd ak Wally Seck di liggéey ak moom dafa def na liggéey bu mucc ayib boo xoolee Baye Zala nga xamante ni noonu lay liggéeyee ci biir Faramareen bi nga xamante ni euh, avancement artiste bi rek moom moo ko ñor Adamo boobu ba tey nag ñuy wax wax génnewul benn preuve te du mës a génnee benn preuve ci laa yomi din am na fu muy waxee ci biir euh, live am naan daf ko envoyé Euh, euh, maanaam video yaayu Mandiaye sekk fi mu defee naka sudul noonu maanaam di def lu ko neex alors que loolu dara du ci dëgg ilaa yow mi diin Adamo du génnee vidéo yaayu Mandiaye sekk di ko euh, di ko Baye génnee bu fekkee li muy wax am na na génnee vidéo bi nga xamante ni Baye Zale da ko ko envoyé ci yaayu Mandiaye sekk du ko mës a génnee pour wan leen ko ne rek pour wan leen yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seetaan lii yëpp dañ koo prémédité li yëpp dañ koo préparé pour yàq ki nga xamante ni moom mooy Baye Zale te Baye nag lu ko waay waxal waxal waxal képp koo xamante ni artiste la mu nekk sa wet di liggéey ak yow bëggul lu dul sa avancement mu ba mu nekkee ci Mandiaye ba mu nekkee ci Sidi Diop Baye ba nga ko interview sax pour nga am ko ci moom problème la kon yaakaar naa ni moom ci liggéey la gën a fukki ka nekk di wax ay waxi Euh, yoo xamante ni wax bu na naka sa xandak la voilà ñu jeexalee ak Adamo yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ci euh, live am li nga xamante ni wax na ko nee na dafa téye album mu ki nga xamante ni moom mooy Mandiaye Seck yaakaar naa ni wax bu feebaree nopp yu koy dégloo war a ndax yaakaar naa ni moom Baysal euh, ménagéru Mandiaye Seck kase la woon koo xamante ni moom moo dugal xaalisam ci album moom moo investir moom moo def lépp moom simple ménager nan la mën a téye li nga xamante ni moom mooy albumu Mandiaye Seck yaakaar naa ne loolu bu ko defoon Mandiaye Seck daf koy pro da koy porter plainte directement kon yaakaar naa ni loolu ay waxu yàq kese la ay waxu pour euh, ternir image yu jàmbur kese la mais dara du ci dëgg leeral la boo xamante ni dama ko indi woon ci li nga xamante ni moom mooy actualité people bi nga xamante ni jamono ji lëmbe na li nga xamante ni rek moom mooy réseaux sociaux yi di leen jox jox dig daje très bientôt ci yeneen actualité people d'ici là portez-vous bien merci